fukki waxtoog benn ci guddi di 23h toftal na fanweeri simili auditeurs yu Mouhalim yi foofu kon ñu ñëw ak yéen comme ni ñu ko baaxoo defee yegg ngeen xabaar ñu mujjee am ñeel diggante Israël ak Hamas tey jii di gaawu ñetti fan ci weeru février dëppook ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru rajab xabaar yi nag li ci gën a tey bokk na ci li nga xam ne Amérique defaan nañ ko seen diggante ak Houthi yoon yi tey jii situation bi critique bi nga xam ne dafa la ci bande de Gaza waaye itam ah, ñi nga xam ne ñoo di waa Hamas njàmbaarte ko defaan nañ ko seen diggante ak waa Israël ba faataat lim bu takku ci seen ay soldats waaye laata ñu yàkkale ko ñu fàttali leen yéen ñi bëgg a dugg ci groupe Mouhalim Infos yi na ma ngeen jaar ci 77 320 93 21 77 320 93 21 waaye itam ngeen mën a abonné ci sunu page wala bokk sunu chaîne YouTube Mouhalim TV ngir dafa mën di dabuwaat mboolem li nga xam ne mi ngi jaar ci groupe Mouhalim Infos ci ay xabaar xabaar yi dañ koy tàmbalee ci loolu waa Amérique defaat nañu ko tey jii te moo di bombardé waat ñi nga xam ne ñoo di xaw si yoone yi di waa ansaarullah yi nekk fële ca yaman Amérique tey dañoo àndandoog Australie Bahrain Canada Danemark Hollande ak Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande daal di nag attaqué waat si yoona yi daal leen di bombardé bombardement yu tara tara tar américains yi nag wax ni lii nga xam ne def nañ ko tey defaat ko bokk tey ji nee ñu daal mooy conséquence li nga xam ne moom la xaw si yoon dëpp def dëkke def ci euh, euh, fi nga xam ne moo di mer Rouge di attaqué navire internationaux yi nga xam ne ñooy di jaar ci wet googu yi boole ki li nga xam ne moo di commerce international bi la Amérique bëgg mu dakk waral kon moo bombardé waat leen tey jii bombardement yu metti ba tey américains yi xam le ni bombardement yi nag ñu ngi ko def jaare ko ci avion de combat yoo xam ne tam ngi jóge ci seen ay seen port d'avion yenn bord port d'avion yoo xam ne am nañu ko tam nekk ci wet googu la ñuy jëfandikoo ak seen ay navire de guerre ngir bombardé waat bombardement yu taratar yi nga xam ne ñoo di waa Houthi yoon yi bombardement yu metti la leen daal di defaat tey jii ànd ci ak waa ñi nga xam ne ñoo di waa Britannique muy waa Angleterre rek lañ ci àndal bombardement yi nag auditeurs yi Mouhalim Info tey jii dem na ba àgg ca capital ba di saana wala ñu ne Sanaa Sanaa ñu naan ko Sanaa foofee kon tey jii bombardement yi àgg na fa fële ca euh, réewum euh, Yemen waa Amérique kon woy di jàmmaarloog ñoom ngir bëgg ñu dakkar li ñu nekk waaye day ànd ak loolu yëpp ñoom ñi nga xam ne ñoo di euh, waa ñoom xaw si yoon ay day fa suñu yére dellu ginnaaw benn yoon ñoom daal nee ñu li ñu nekk duñ ko dellu ginnaaw benn yoon kook mi ngi bokk ci bureau politique bu groupe Ansarullah xam le ne ni daal ñoom seen digganteeg li ñu nekk di def ca Euh, Bahrul Ahmar di mer Rouge def di ko def ngir dimbali waa Bandagasa du dakk benn yoon te itam lu leen Amérique def itam ñu ko fayu ki xam ni mel mooy Mouhamed al Boughiti bokk ci kilifay Ansaarullah auditeurs yi mu àllimee foofu kon ñu bàyyi loolu nak wax léegi ci situation bi tollu waaye guerre bi jamono ji nga xam ni tar na lool lool lool waaye laata loolu itam baax na itam ñu xam ne Euh, waa Amérique tamit xam nañu ne am na juróom juróom benn missile yooyu ay missile anti navire la yooyu eh, waa Yemen sànni waatoon nañ ko te gi ci géej gi xam naa xam naa dañ doon jéem a fayu waaye day Amérique nee ñu yàq nañu ko mu toll ci juróom benn missile léegi kon dañuy bàyyi loolu auditeurs yi Mouhalim Info wax ci situation bu critique bi nga xam ne ma ngi wéy di am ca bande de Gaza jàppaleen tey la def ñaar fukki téeméer ak ñaar fukkeelu fan cent vingtième jour bi guerre bi tàmbalee léegi jàpp leen euh, foofee ba mu tàmbaleeg léegi lu ëpp téeméeri junni nit yooyu ñii dañoo am ay gaañu gaañu ñii réer moom lañu ñu xamle foofe bu ñu sukkandikoo ci OMS organisation mondiale de la santé daal nee na liggéey bi tàmbaleeg léegi lu ëpp téeméeri junni nit ñenn ñi réer nañu ñenn ñi blessé am ay gaañu gaañu fefe ca bande de Gaza di lu doy waar. waaye itam auditeurs yi mu àllime foofu ca bande de Gaza te itam waa Al wax nañ xabaar bu doy waar de bopp nee ñu daal. waa Palestine wala bokk def nañ ko ci kaw waa Palestine te waa Israël defati ko ne ñu dañoo gis toll ci fanweer ci ay néew yoo xam ne dañ leen a mënoote ba noppi faat leen gis nañ leen te ji fële ca bande de Gaza gis nañ leen ci daal ñu sulli leen ay doomi réyu Palestine yooyu nee ñu waa Israël dañ leen rey dañ rey ci rey gu ñaaw reyin wa nag mooy dañ leen a mënoote ba noppi faat leen suul leen noonu ñu toll ci fanweer loolu day xabaar la bopp tey jii la ko euh, kilifa yi Euh, Palestine kilifa ban daga sa xamle Al Jazeera yeggal jàllale ko ba tey ci xabaar yi tey jiir rek itam tey tey jii waxaat nañ juróom-ñeent ñoo xam ne faataat nañ leen ci ban daga sa ak fanweer ak benn ci ay nit yooyu am nañu ay gaañu gaañu ba ñu rawale leen ca hôpital auditeurs yu Mouhalim info bu ñu jugee ci loolu dañu wax ci loolu waa brigade al Qassam ñoo ko xamle wax ne itam ñoom tey jii daal nañuy tiire ay jumtuwaay de guerre ci benn rassemblement des forces d'occupation maanaam ci daan nañ si daan ah, tiire ay jumtuwaay de guerre maanaam ay missile ay ay ah, daal waaye ay missile la ci gàttal daan nañ koy nag ah, sànni benn rassemblement bopp maanaam force israël ñoo fa nekkoon maanaam daal foo xam ne fu ay soldats yu réew israël dajaloo woon foo ay soldats yu réew israël dajaloo woon ca penku bande de Gaza nee ñu te jii daan leen di sànni jumtuwaay de guerre mu dal leen maanaam daal sànni ko ci seen biir indi leen jafe-jafe loolu day xëy na kon mooy firndeel lool Euh, wax nañ ko tey jii muy fukk ak juróom ci ay soldat yi réew mi Israël yoo xam ne faataat nañu leen loolu sax waa Brigade Qassam ñoo ko xamle ñoom xam ne nañ ne kon tey quinze soldats yi réew faataat nañu leen foofee ca Bandagasa mel na kon loolu yi la ko waral mooy li ñu wax ne dañoo ciblé groupe bu soldats yu réew mi yu taxaw ñaari leen sànni jumtuwaay de guerre loolu ba tey bokk ci xabaar yi auditeurs yu Mouhalim info courte xabaar gi di Yajud Axanut joxewaat na beneen révélation bi yoon la mu wax mooy dëpp ba guerre bi tàmbaleek léegi Israël daal dinay traité ay ay junni junni eh, eh, demande yooyu soldats yi réem Israël ñoo leen koy sàkku ci ñoom ngir nag ñu taxaw leen ci wàllum physiologique ñu taxaw leen ci wàllum physiologique ndax dañ koo ittewoo ndax guerre bi ñu nekkoon ak jafe-jafe yi ñuy dundu tax kon ñuy sàkku ci kilifa yi ñu amala leen assistance physiologique maanaam daal ci wàllum xel rek ci ah, gàttal auditeurs yi Mouhalim Info ba tey ci xabaar yi Euh, auditeurs yi Mouhalim FM dañu wax ci lii nga xam ne kook moo jiite woon Mossad moo ko daal di xam ne boo déggee Mossad nag mooy ñu yor wàllum renseignement euh, ci réewum Israël kii nag moo nekkoon jiite woon na ko di wéy ko turu Yossi Cohen Yossi Cohen nee na euh, Israël soxla na juróomi at ginnaaw bi guerre bi tàmba ginnaaw bu guerre bi jeexee. soxla dina soxla juróomi at ngir nag mën a jugaat maanaam daal jotaat ay force mel ne mu meloon laataa moo jàmmaarloog waa Hamas ndax kat lañ ko jubloo rek mooy jàmmaarloog gi mu jàmmaarloog waa Hamas ay laafam yu bare baree bari kon daal dina ci tooye xabaar bu sukkandikoo ci autorité israélienne de radio radio diffusion ci la ñu ko sukkandikoo bu ñu sukkandikoo ci kër xabaar gi di Reuters ñoom nag kër xabaar la nekk ca Angleterre nañu chambre des représentants américaine yaakaar naa mooy Sénat bi ñoom semaine bi ñu dëdmal daa ñu wote ab luwaa bopp dañuy yëkkat lu toll ci dix sept virgule six milliards de dollars dimbalee ko Israël seen digganteeg waa Hamas ndax xat fi ne ni moom Israël mbir mi tar na ci ñoom loolu wala bokk ma ngay wéy di tar ci ñoom lii tam xabaar la bopp ñeel na mer Rousse bëggoon nañ ko jàllale waaye dañ ko bëggoon nañ ko boole ci biir wax ci mbirum mer Rousse waaye fàtte ko kon mën nañ ko cee boole mooy dafa am benn euh, euh, ba maanaam benn mm, bato bu mag a mag bu yëngu ci wàllum transport maritime boobu waa France ñoo ko moom bato bu mag a mag bu yëngu ci wàllum transport maritime boobu waa Israël ñoo waa France ñoo ko moom nga xam ne ay conteneur le sëf di dem ci ay réew réew di ko fa yóbbu bato boobu nag waa France daan nañu jël dogalub taxawal ko mu bàyyee jaarati ci mer Rouge en tout cas mën naa kilifa yi ñoo ko taxawal wala taxawaluñ ko en tout daal bato bi ci boppam moom buñ sukkandikoo ci Al daal dinañ jël dogalub taxawal ko mu bàyyee daw maam daal mu ma maanaam da jaar gi daan jaar mer Rouge arrêté na ko ci gàttal batalo bopp li muy sëf ci conteneur bëri na lool benn bato bu mag mag la France ko moom daa ñëw ci wàllum transport maritime dakkal na ak dem ak dikkam ci gée euh, euh, géejug euh, mer Rouge CMOA noonu la bato bi tudd loolu bokk ci xabaaru auditeurs yi mu àllime foo yaakaar naa kon day loolu mooy li gën a fes ci tolluwaay guerre bi jamono ji ci diggante Israël ak Hamas di leen ah, dig daje ah, ba suba ak jàmm incha allahu rabbi ci yeneen xabaar ñeel guerre bi seen colté mooy sunu sakk salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu yal na yàlla wattu Sénégal.